Ablaye am na ñu ma jiitu woon daan tim géwél di ko baatare tey kenn woyatu leen gisatuñ leen loolu lépp bi may nekk xale di sonn laa ko gis ba màgg soo bis kenn duma ci lekk ku ma lekkut dooma lekk te duma ci perte en dehors de showbiz nag sentiment sentiment la relation relation la mais showbiz bi dama koy def ba mu mat aw ma ci ngor aw ma ci kóllëre aw ma ci mbañ gàcce aw ma ci rus parce que soo biis la dafa am réalité na ma koy dund ba mu mat ku ko mënta dund saf affaire la mais man aw ma ku may far aw ma ku may jàpp ku may bàyyi ku ma woy ma teral la ku ma sentir sa woy na la wéy ma nga wéy ma benn woykat laa wax ci àddina woy ma benn wéykat ñaarul